guddi ca kër sëñ Mansour Sarr ñuy ziara tamit bu baax képp ko xam ne yaa ngi foofu di taalibe sëñ Mansour Sarr nuyu nañ la di am ci Medina Baye di am bi nga xam ne nag mooy baayu euh, ki nga xam ne moom mooy Mami Ndiour ñu ko wax joyeux anniversaire Abdou Kader Kader Fatam Fallou ñu koy nuyu di ko ziar ziar bu wér waaye waa Grand Dakar yëpp ñoom Mbaye Dabo cuisinier institut chéri Lalla di wax joyeux marketing TFM fii suñu xarit la et toute sa famille nag foofu ca euh, fi mu dëkk nag toute la famille si ñu ngi koy souhaiter joyeux anniversaire Aïssata Sy rawatina waa TFM yëpp Ndeye Assou Diouf et lui euh, euh, Otala depuis Espagne ñu koy nuyu tamit lui Otalo Otalo ñu ngi depuis Espagne. Sakhir Diagne hôpital La Dantec fan si club Kouthia la nekk moom Sakhir Diagne di xaritu maam jaara euh, madame Dramé Kandji Socé ñu koy nuyu waaye di nuyu tamit Karim kamara ak euh, ki nga xam ne mooy Soda Fall euh, di ko nuyu madame Camara ñoom Tabara Fall ñoom Hana Fatou bintu Diop de la part de Karim Camara muy am mbégte contentement di nuyu tamit bu baax ñi nga xam ne moom mooy. Euh, samedi le 28 mars suñu xarit Pape euh, Pape bi nga xam ne moo nekk fii Pape Anne di def delloo njukkal Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam foofu nag ca place du souvenir ñun ñëpp incha allah danañ fa teew ndax Pape Anne ku nit ku yàlla baaxal la Abdou Fatah Mbeng di taalibe Serigne Jili Fatah euh, Mbacke Falilou moom tamit ñu ngi koy ziar ziar bu wër nag dëkk ca Ouest Foire di liggéey ci aéroport di taalibe Serigne Jili Abdou Fatah Mbacke nuyu nañ bu baax ki nga xam ne nag moom mooy Abdou Fatah Mbeng dëkk ca Ouest Foire di nuyu tamit Modou Mbaye Garmi artiste peintre Ouest dëkk nag ca marché Sëñ Fallou waaye di yeewoo ca Pikine chéri euh, Ndeye Khady la ñu ngi am mbégte contentement di nuyu Ousmane Gueye chef de quartier HLM 3 Doudou Sylla Ndiaye dëkk ca HLM 3 ak As Diagne ñoom Aytu Dieng Adja Mbaye Diop Ndiobentaay ak Aminata Gueye ca Waalo ci euh, chéri Assane Sine di nuyu tamit ki nga xam ne nag moom mooy Adja Sophie Diop ca Mbaye euh, Ndiobentaay ak tous les habitants de HLM 3 la famille Sine Kalidou Niang ñoom ñëpp ziar nañ leen di am mbégte contentement ci ñoom ñëpp ñu ciy gërëm bu baax nag ki nga xam ne nag moom mooy Omar Sidibé téléphone du monde la nekk foofu ca quartier mook Seydou Anne ñu ngi leen di nuyu et tout le personnel mbokk yi ki ñu seeti moom mooy euh, Madické Niang cooli fi la ko fekkoon ba Ablaye Wade di wax mu ngi toog ci wetam mais benn instant boo xoolee ci vidéo bi dootoo ko gisati lan moo tax mu yëkkatiku dem yoonam ndax wax ji da koo vexé ñu seeti Madické Niang moom nan la dundee coow li nga xam ne moom la Ablaye Wade wax ba lëmbee réew mi ñu seeti ko Madické Niang waaw waaw ni ndar ndar baa nge maître Madické Niang jërëjëf Ndiaye jërëjëf Ndiaye jërëjëf dërëm maa ngi leen di gërëm di leen sant ku nekk sa tur ak sa sant wax dëgg yàlla da ngeen di way sax pour rek xëy na lu neexal dëkk bi waaye tey du bésu way sax boo xoolee parce que daanaa dégg gàcce yàlla ci yàlla musal waaye keroog gàcce jàpp na ma fa ma toog ndax le président de la république maître Abdoulaye Wade bi ko nekkoon bi muy wax wax ji man ndar ndar laa lu tax ngeen way ndar ndar baa ngi da ngeen bëgg wax ne ndar ndar kersa la moo ñaale yàlla ko def ndar ndar day am kersa waaye keroog wax dëgg yàlla ku gis nen ne nena ngi soo gisee mënu moon toog wax dëgg yàlla gàcce gi dafa rëy ndax le président de la république ñun ñëpp moo ñu njabootee man avocat laa damay faral di layal nit waaye am na yoo xam ne duma ci mën a layal nit ndax nit nit la te nit nit ay garabam am naa kersa di toog ñuy seedal doomu aadama loo xam ne kuñ ko waxoon sa waajur du la neex moo tax keroog ak conviction bi ma am ci président Ablaye Wade ak cër gi ma ko jox keroog ak li seddaay bi sedd Dakar ñak doq gëj naa ko gis waaye ci ñaq doq doq gu ñaq tooy xepp moo ma dal bi président Ablaye Wade di wax mbay peex tetuwaa war nga génn man bëggoon naa jël kàdduwaay dama doon bañ tamit ñu ne ma tetuwaa war nga ne mu ci biti li am nag man ci sama tour personnel maa ngi wax ne Macky Sall ñu ngi jégalu bu baax ji wax ne wax ji même bu fekkee ne nit ñi dafa am nuñ ko gisee man ni ma koy jàppalee ak ni ma koy jàngatee mooy politique am na d'accord ci langue politique la bu doon ci campagne la sax ñu mën a wax ne xëy na ci campagne am na loo xam ne nit ki mën na koo dégg waaye nekkuñu ci campagne man dama rus wax dëgg yàlla personnellement li nga xam ne moom laa yëg en tant que ndar-ndar en tant que xam ne kees di taalibe murit nag te ñu yaree ñu ci yar ak teggin ak seedal doomu aadama lu rafet ndax man bu dul dara Macky suñu rakk la suñu frère la ñoo ko dalal te ànd nag président de la république dem Fatick fanaan fa ñaari fan li nga xam ne moo am tey soo déggee sama kàddu sax ma di xam ne nag kàddu gi tey dafa changé man ah, position bi ma taxawee dafa nekk position bu sensible ndax président de la république maître Ablaye Wade dama ko doon xamal ne ko président sa yaram buy tàng del faral di naan ndox te ñu koy jox ndox muy dalal parce que ndox dafay tax doomu aadama saf safara la seytaane safara la buy ñëw day tàng li dal président de la république ci tàngaay la ko dalee ci tàngaay la ko dalee waaye bu wéetee moom kese ak yàlla suñu borom xam ne wax ci kenn mënul taxaw na président li mu wax ëppul nañ ko wax dëgg rek te yàlla tax ndax ku weer sa bàmmeel ñun ñëpp dañ fiy jógee te bu ñu robee keroog ba ñu wax wàññi ginnaaw suñu bàmmeel du Ablaye Wade moo ñu fay fekk du Macky Sall moo ñu fay fekk yàlla moo ñu fay fekk ak malaaka yi ñu nag jëf ju baax ji ngeen doon jëf ak yu baax yi ngeen doon seedal mooy jëf yu bi bon yi nga xam ne moo ngeen doon def ci àddina te ku nag sa yu baax sa yu bon na la koo yàqal nag te yu baax balaa sa yu bon la ko yàqal man nag wax dëgg yàlla keroog laay soog a xam ne ñaq ndekete dina génn ci doq te doo ko yëg ndekete ñaq dina génn ci rongu nopp te doo ko yëg li président wax nag moom la concerné waaye man sax tiit naa ndax ñun ñëpp war nañoo tiit ndax ëllëg président mun nañoo position bi man dama jot man bàyyi leen rey eh, lii président wax Macky ñun sax mu mun nañu ko <laughs> mun nañoo xëy jiiñ ñu ko ndax yàlla rek ah wax dëgg yàlla ma gàcc gi foogoon naa gàcc na gàcc guddi man dama ne ñàkk ñàkk dama foogoon ne nit day def nii ñàkk wara nga gis ñàkk ci ay loxo waaye ñàkk doq muy siit nànk nga koy sentir keroog laa ko yëg. moo tax ma ne waaye li nga wax dëgg la ndar ndar day bëri kes waaye boole ci nag ñu ko tuubal man ndax wax ji sama kër la amee fi ab dëkk moomu ko sama kër la fu ko waxee kër ma dikke la ko waxee waxee wu ko këram de sama kër la ko waxee foofu sama kër la maa ko jox pour mu dallu waaye kër ga nag la la fa wax dafa rëy wax ji ci boppam moo rëy moo tax li mbay pee wax léegi wax dëgg yàlla président na ko tet waa war ci biti ñun tamit dañuy bañ ëllëg mun nañu taisez-vous war a ci biti moo tax ma ne ko ñu ngi tuubal ma kii man maa ngi tuubal di ko wax nañu baal nañu jéggal te mu bañ a tontu ma kii bul tontu bul faale te del baale. bul tontu bul faale del baale ma